wajaal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi bàyyi xel fun mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santate yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi ndokkeel ak a jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel di leen wax ne tey jii nag dañu leen a fas yéene indil benn secret boo xam ne secret bu ama am solo la secret boo xam ne képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga amoon njaboot te bëgg suñ borom jubal njaboot googu boo ko defee incha allahu rabbi suñ borom dina jubal ñu kooku bu baax a baax a baax. wala muy nekk koo xam ne mag la waaye nag li muy mooy yàlla dafa bari te mooy yàlla gi bëgg na kaa bàyyi insha Allah, rabbi ni ñu koy waxe bu ko defé rek suñu borom dina ko dimbalé bu baaxa baaxa baaxa baax mo ben nga am dom jo xamné da ngay ragal mo moy yalla manam nga bëgg sa dom nek dom ju jup boko defé suñu borom dina ko jubal bu fekke ne yow iya, ku makke timit da nga nek nit ko xam da ngay moy yalla ta bëgg ka bayyi boko defé suñu borom dina la ko lo. ta insha Allah, rabbi di nga nek nit ku juba juba jup. insha allah ana bala ñuy sori ci secret bi rek dañuy defati ab fatali bu gatt rek ci suñu mbokk yi mujjee ñëw ko xamné ne abonné yi nga abonné tay gëna partager vidéo yi mu gëna yaatu ndax vidéo yi ni dugal ci seen bi yépp ay vidéo yi njariñ kessa la ta njariñ mom nu mu gëna yaatu rek ci la gëné di wax mbokk yi nga xamné ne dañoo bëgg def la xaar tamit dañuy def xaar à distance fo man di nek ci aduna bi contacter ci numéro bi rek Insyaallah allah rabbi des na la defal xar gu leer naññi mbokk yi nga xamne ne dañuy wo garab yi katani mu garab bi musxam yi ñu leen di wax ne jamono bi ñi wax ak yeen disponible at na ku ci wo rek man nga ñu contacter ci numéro bi insha allah rabbi mbokk yi nga xamne ne dañuy wo jaara yu am solo yi ñuy defar tamit jaara yi disponible at na jamono ji ñuy wax ak yeen mo xam muy jaara ubbiku yi wala muy jaara bayre yi wala muy jaaro muslaay bi moom ci man di doon rek disponible na xanaa kon mbokk ñu ñëw ak yéen ci secret bi fas yéene leen kaa leeral waaw secret bi bu fekkee ne da am doom muy ab liir nga bëgg mu nekk doom ji jub nekk koo xamante ni suñ boroom da koy jubal bu boobaa na bind lii ci aw kayit fexe ba takkal ko ko ngay bind bismillaahi rahmaani rahiim ak salaatu ala nabi boo man nga def yaasiin wal quraanil hakiim innaka la minal mursaliin ala siraatin mustaqim waaye nag mustaqim gi ubbi miim gi boo noppee nga def alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqim moom it nga yaatal miim gi wa hadaynaahumaa mustaqim moom it nga bind ko yaatal boo noppee mboolee miim yi nga yaatal yëpp dangay jël turu liir boobu maanaam turu xale boobu ngay jël def ko ci biir takkal ko ko incha allah rabbi kooku dina nekk suñu boroom dina ko jubal bu baax bu fekkee ne nag dangay mag moo xam ne dangay moy mooy yàlla te bëgg mu dañ bëgg suñu borom jubal la lii danga nga koy bind comme li nga bindaloon liir bi takk. boo noppee di nga ko bindaat juróom-ñaari yoon boo noppee di nga ko bindaat juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon yooyu saafara lay doon maanaam weer wi ñetti altine yoo yu tegaloo yoo xam ne da nga koy woor boo wooree jimi saafara sii nii boo dogee moom mooy njëkk ci sa biir incha allahu rabbi boo ko defee de suñ borom dina la jubal dina la musal tamit ci mooy kon xam naa lii mooy secret bi nga xam ne indi loon nañ leen ko tey. di leen wax ne bu leen fàtte nag di abonné tey gën a partage vidéo yi mu gën a yaatu ndax vidéo yi vidéo yi njëriñ kese la di wax yow mi nga xam ne da nga bëgg def lu listixaar mën nga ñu contacter ci numéro bi incha allah rabbi des na defal listixaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf.